ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte dellu si waat fii laaj ak tontu war a dox suñu digganteeg Baba Tandian président Tandian ñi ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay di nuyu seen auditeurs yëpp nekk Sénégal ak mhm. euh, bitim. alors euh, bu téléspectateur yi jaaxle buñ la gisee nekk nga président fédération basket waaye aussi. quatrième vice-président fédération football ñu bëggoon jàngat impact bi nga xam ni victoire euh, Sénégal euh, ci Coupe d'Afrique des Nations bi mujj am na lan la ñu mën a indil mais laata loolu Aliou Cissé àdduna ci TFM Mamadou Ndiaye am na entretien laaj tontu bu dox diggante ba coach national désormais surnommé El Tactico donc El Tactico ci kanam tuuti dina wax ak yéen xëy na sax soir d'info bi balaa muy yemb ma am lum leen ci euh, mosal tuuti dégtal leen ko gannaaw journal français bi ñu tegal leen lépp Mamadou njaay depuis ci suba laaj tontu dox na digganteem ak euh, Aliou Cissé donc dina indi faram ak jàngat bu yaatu ci victoire boobu nga xam ni gaynde Sénégal yi am nañ ko à la Coupe d'Afrique des Nations et au Cameroun man defe naa li ñu ko gagné Cameroun bokk na ci li ma gën a neex dinaa ko expliquer xëy na après si j'en ai l'occasion euh, et l'opportunité mais sinon euh, ni ma la ko laajee président Tandian bi ma ne football bi ku ci am wàll nga ku ci am cër nga nekkoon nga quatrième vice président yoroon wàll marketing maanaam lu mën indi koppar lu mën dugal lan la mën a rapporter Sénégal victoire bu mel nii. waaw euh, Der da nga permettre rek ma nuyu Sénégal. Hmm. nuyu. Euh, ki si jëkk mooy le président la république nga xam ne vraiment euh, il a misé mm. et il a misé juste sur l'équipe nationale du Sénégal parce que boo demee ba ne ay nit jox naa leen ay moyen mm. mais lu ñu soxla du final moom mooy indi coupe bi fii mm. xam nga da nga sas joueurs yi le fait que mu sas joueurs yi aussi loolu dafa am benn important bu capital nga xam ne joueur bi bu duggee si parce que ancien joueur la. bien mm-hmm. du football basket mais boo duggee si biir terrain bi dafa am looy ko ak lu la ci di fa wax mm. je crois que loolu la euh, xale yi jàngat xale yi def parce que en fait finalement bëgg ci ni ñuy joué nga xam ne ñii beneen source motivation la ñu amoon bu nga xamee ne loolu moo waral ndam mi ak si tey vraiment ñu ngi leen di féliciter nga permettre ma aussi ma féliciter ce que j'ai vu ici ci mouvement bi parce que suma buntu kër la ñu jaar mm. la horde lu monde qu'il y et puis l'excellent travail que les forces de l'ordre ont fait la mm. gendarmerie la police mm. mais vraiment liggéey bu ñuy def mais dafa jégg dayoo ça il faut vraiment les féliciter parce que en fait euh, seen rôle la ñu def maintenant euh, comme ni nga ko waxee rek euh, football xëy na ñu ñi dañ jaaxle parce que aussi j'ai été quatrième vice-président de la fédération sénégalaise de football nit ñi xamuñu ko sous de maître Abatalib Gueye à la fédération de football j'étais quatrième mm. donc donc xam naa si as mais euh, li football bi indil Sénégal. nit ñi mënuñu xam euh, en valeur absolue. lan lay jëriñ. parce que soo gisee par exemple un pays tout le monde a vu par exemple je prends l'exemple de Jeune Afrique tout le monde a vu un pays bu nga xam dañuy jël. benn dëkk. jël xaal bu takku. bu bari jox ko benn journal comme Jeune Afrique. pour di def ay pages publicitaires. Ah, parce que tout dafay law si àdduna. waay pour ñuy wax ci ñoom la c' est de mm-hmm. parce que dëkk aussi a besoin de publicité soo gisee de grandes villes comme Marseille comme Lyon comme comme Saint-Étienne et tout ça ñuy sponsoriser à outrance mm-hmm. seen club bu dëkk. c'est mm-hmm. pour vendre le nom de la ville. de leur région. c'est-à-dire Saint-Étienne Lyon et tout ça. mais aujourd'hui l'équipe nationale du Sénégal. de football a vendu le Sénégal dans le monde entier. parce que boo demee ci adduna ji yëpp. du de Dakar ba Praia. Mm. ba États-Unis mm-hmm. ba Fongolimbi mm-hmm. ba Japon mais sénégalais yëpp pour te dire que les sénégalais mais vraiment c'est des c'est de grands immigrés. mais ils sont partout. mais ñoom ñëpp jëlee nañu. et ça ça attire le monde ça attire les gens qui sont à l'étranger mais quest qui se passe quest qui se passe au Sénégal Sénégal fan la. les gens ils vont aller regarder Sénégal fii et ça c'est important ouais. c'est très important li boy yi def mm. non Sénégal mënu leen faj mënu mm. leen faj mm. je pense sur les réseaux sociaux laa gis aux États-Unis famille bu yuuxu ba la police dañu ñëw bi ñu ñëwee di laaj lan na parce que dañu foogoon ne eh ñu ne Sénégal moo gañ. dañu tiit. oui dañu tiit. ils ont débarqué dans la maison. c'est sur les réseaux sociaux. au Sénégal au Sénégal on s'y on on s'y attend mais à l'étranger ay yuuxu jàmm la dañ doon jubilé <laughs> mais bu ñu génnee après. c'est extraordinaire ñoom ñëpp dañu mujjee génn. oui di jubilé ak ñoom en même temps. pense que. Mais euh... alors, vous êtes président de fédération aussi, comme je disais par ailleurs, de basket. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de pincement au cœur boo gisee li ñu defal euh, footballeurs yi et performance yi nga xam ni basket yàgg ko def te xëy na am nañ ko par exemple les primes. non xam nga il faut il faut relativiser nag quand même euh, du ñu takkale euh, le basket et le football. Mmh. bien que le basket est un grand sport. est un oui. sport roi qui a oui. beaucoup de choses au Sénégal. Et, bi moo fi mm-hmm. jëkk am. récompense. mais bien récompense si basket bi la jógee si Abdou Diouf. Mhm. à l'époque quand Abdou ku def lu rëy. am lu rëy ah ci yéen la ko waxee ah. <laughs> <laughs> a débuté am lu rëy donc foofu la débuté. Mhm. avec euh, Ousmane Paye à l'époque. Mhm. donc euh, si la kër yi génne. Euh, vous savez le le village des. oui oui voilà donc foofu la génne donc et la tradition a s'est perpétuée à la aujourd'hui Euh, vraiment, nous, nous fêtons le football, mmh. qui mhm. est une première. Mhm. Depuis mmh. 60 ans, tout le oui, monde attend cette victoire-là. Euh, dans le monde entier, que ce soit même dans les pays européens. Mhm. Joueurs, ça, c'est un club qui joue, c'est un Natango en Europe, ils donnent toc 17 ans. Donc, ce qui fait que. Un, garçon comme Nampalis Mendy, par oui. exemple, qui n'était même plus dans le groupe de Leicester. Par exemple. Ah, euh, ci biir compétition bi club am siiwal ni delloosi nañ ko ci groupe de performance. jouer ça et ce qui fait que Sénégal footballeur lu ñu apporter Sénégal moi je dis euh, vraiment euh, faut pas faire la fine bouche récompense bi rëy na rëyul. Mhm. mënoon na ëpp lii bu ëppoon lii aussi. on n'aurait pas créé au scandale. Mhm. parce que lu ñu defal Sénégal certains ont jugé oui que c'est exorbitant cinquante cent mètres carrés à Dakar cinq cent mètres carrés à Diamniadio dans le premier arrondissement de Diamniadio. Oui, mais bon, j'ai entendu euh, notre ami Guy Mérissagna dire euh, ce matin. Bon, je pense qu'il a eu la réponse euh, qu'il mérite de Aïssatou Diofal et de Bamba Kassé, parce que moi j'irai un peu plus loin encore, parce que vraiment Guy Mérissagna, il faut qu'il arrête. Mm. Parce que quand même, bon, on ne peut pas jeter tout le temps du sable un peu euh, dans, dans, dans, tout ce qui est positif, c'est-à-dire que le fait de vouloir exister par tous les moyens, donc tous les moyens sont bons pour, pour, pour, pour jeter du sable dans, dans parce que aujourd'hui cette victoire c'est notre victoire je pense que Guy Marius Sagna fu ñu koy xaare sincèrement man Tandiane fu ñu koy xaare moom mooy mu wax un peu c'est euh, c'est nos compatriotes qui ont été retenus par les rebelles en Casamance mu wax si parce que foofu la dëkk donc certainement xëy na peut-être que mun na wax ñu na ñu wax xëy na xëy na fu fu fu fu ñu jàpp ñooñu fu ñu jàpp fan la ñu nekk mais moi je pense que loolu mooy waru garam que plutôt ñëw bëgg a suuf un peu li nga xamee ne xale yi def nañ ko si liggéey bu rafet nga xam ne Sénégal gi si am na y a des moments euh, c'est indécent parce que mm. l'indécence frise le ridicule le ridicule un tout petit parce que Guy Marius Sagna bu gisoon le monde qu'il y avait sur la route xanaa man j'ai l'impression que xoolul télévision mm. xoolul xamul lu xew dafa jékki-jékki ni bërëx ñi rek wax tout simplement parce que il a besoin d'exister parce que vous lui vos caméras les micros et tout ça il parle mais il faut arrêter en, démocratie bah, non quand vous dites vous lui vos micros non non non chacun le faites-le mais en tout cas man je sincèrement daf mu ñu taxal mm. mu ñu taxal dañu bàyyi ñu parce que ça c'est du positif mm. parce que ça le Sénégal pour une fois boulette mm. en Mais où est le problème Il a gagné, et il a gagné avec l'ensemble des Sénégalais, y compris lui-même. Y compris lui-même. Affaire du président Mounouko Akibo Monken. Mais il faut quand même dire que c'est sa victoire. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Pour dépasser ce chapitre et revenir sur le symbole Binga Donwar, euh, comment est-ce qu'on peut comprendre que pour une campagne pareille, il y a encore un prestige, que 5 milliards en prime. En retour, tu as ma mémoire ne me trompe pas, tu n'as même pas la moitié de ce que tu as misé aussi, investi plutôt pour, euh, pour gagner la coupe. Mais qui a misé non, non, c'est pour dire l'importance de li nga doon wax que coupe bi symbole bi mu symbole on a mis milliards. pour euh, gagner ko en retour tu n'as même pas la moitié en prime. xam nga xam nga euh, venant de la CAF. pour être précis xam nga prime c'est pour motiver les gens. Mhm. Euh, damay damay rappeler rek Senghor. Mhm. quand l'équipe nationale de basket avait gagné la coupe d'Afrique. Mhm. ils ont droit une médaille. pas un franc. pas une maison pas un terrain ni rien zéro. Mhm. ci jamonoy Senghor la loolu oui quand ils ont eu gagné. Mhm. avec Ousmane Paye et tout ça donc ils ont concocté justement ce ce truc pour essayer. Euh, euh, defal leen benn benn benn prime bu nga xamee ne. Mhm. mais vraiment ça resterait dans l' esprit. un peu des des sportifs. et ce qui fait que chaque année chaque fois qu'il y a une compétition majeure les gens tentent de se surpasser justement pour arriver à l'extra parce que en fait loolu rek donc je crois que tey euh, euh toujours sur Guy Marius je crois que ñi gagné tey cette coupe y' a pas un qui est à deux cent mètres carrés près. de terrain. franchement y' en a pas un parmi tous ces joueurs qui étaient sur le terrain y' en a pas un. qui est à deux cent mm-hmm. qui y' en a pas un. Mm-hmm. mais il faut faire un geste. Mm-hmm. le geste Sénégal lu am la mën a joxe. c'est-à-dire un terrain mais où est le problème. pourquoi vouloir jël suuf. donc yow yow yow symbole bi nga gën a jox importance. le bi laa euh, gën a joxe ak geste bi. Euh, parce que aussi li li football bi indi dafa rëy. Hmm. Euh, nee naa la mun leen ko quantifier. Hmm. mais vous le est dans le temps. dans hmm. le futur. si ngeen du door a xam. mais mais ci kaw ñu liggéey si. li ngay wax nii ñu liggéey si. du ñu des rek ci ne la publicité c'est am na ba pare par cette victoire on croise les doigts on attend par exemple des retombées touristiques. Euh, je ne sais pas euh, da nga koy liggéey. oui mais xam nga xam nga Sénégal ñu ngi liggéey. Mm-hmm. non moi je dis Sénégal ñu ngi liggéey parce que si tu regardes aujourd'hui euh, les infrastructures yi fi am xam nga man j'ai vécu trois présidents. Mmh. trois présidents mais infrastructures yi nga xamee ne yu fi mujjee am je crois que aussi il faut féliciter le président de la République parce que ça sincèrement ku ko waxul ce qui veut dire que quelque part xam ne da nga xaw a añaan parce que en fait c'est là parce que boo gisee les les les basketteurs les footballeurs bientôt avec le le nouveau stade et moi je pense que sur ce nouveau stade d'ailleurs moi c'est une idée que j'ai hein mm -hmm. qui me passe euh, à travers la tête donc l'inauguration est prévue le 22 le 22 prochain, mais je dis il ne faut pas qu'on à ça mm. le, la prochaine Coupe d'Afrique est organisée par le le, le la Côte d'Ivoire mhm. Euh, rien n'empêche le président Macky Sall à son grand frère Ouattara de lui permettre de récupérer cette Coupe d'Afrique uniquement, ce n'est que pour inaugurer son nouveau stade et inaugurer le nouveau champion d'Afrique ñu joué fii et le prochain tour bu nga xame ne Sénégal mën na ko jël euh, fàttali ko Baba Tandian ah? le le délai est très short et oui, mais, pas c'est pas. je pense que Sénégal fii il a suffisamment d'infrastructures pour ça. Hein, euh, il en faut pas il en faut pas une dizaine. Euh, vous avez Lat vous avez le nouveau stade et vous avez l'amitié amitié. Euh, Léopold Senghor mais amitié. il faut penser à une autre région par exemple pour que mu gën a attractif. oui oui oui oui hmm. mais en fait tout ça tout est possible. Hein, sous on ne peut pas limiter ça à Dakar Thiès et, et c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal mais il faut penser à Saint-Louis peut-être bu ko mënoon def saint wala Kaolack euh, mais il faut il faut que les infrastructures soient au... en fait non c'est une idée que je lance mais bien sûr c'est une idée que mais moi je vous dis que le délai est très short mais ce qui n'est pas très short c'est l'entretien de Aliou Cissé ni mu la ko doon waxee sànq ñu déglu ko rek ñu mosal leen ci laaj ak tontu bi des dox diggante Aliou Cissé ak Mamadou Ndiaye juste après le journal en français ñu déclare leen ko en intégralité moom critique yi moom mën naa wax ni que fii lañ ko fii lañ ko fii lañ ko fekk mais je crois que tey euh, doomu aadama boo gis rek foog naa am na ay ambition dafa war a am ay ambition xam li mu bëgg xam euh, fu mu bëgg dem euh, mu jaral ko nag lépp pour que justement mu mu mën ko mu mën ko mu mën ko atteindre tey bu dee dañuy wax équipe nationale mën naa wax ni que askanu askanu Sénégal lépp ko moom te loo xam ne askanu Sénégal yëpp ko moom euh, mënoo tere sénégalais yi tamit ñu jox si seen euh, seen avis ñu ñu xalaat si ñu wax lan la ñu xalaat ñu wax lan la ñu gis poste bi moo mel noonu tey Aliou Cissé moo fi nekk mais mën naa wax ni que ñu fi nekkoon tamit ku nekk ñam na si ci ci ci critiques yi te suba bu ma fi jógee tamit ku fi ñëwaat tamit na pare na xam ni que moom tamit dina ñam ci critiques yi. man personnellement. Euh, depuis mën nañu wax 2018 ñi ngi topp équipe bi ñi ngi la xam euh, ñi ngi doon gis bi ñu jógee Coupe d'Afrique 2017 après coach bu ñu daan football wala euh, Sénégal bu amoon benn match yu choc yi dañu doon gis mu xaw a stressé wala dara mais cette fois ci campagne bi dañu gis nga ànd ak sérénité boo xamante ni vraiment man personnellement jaaxaloon na ma te du woon yow rek mu mu nekk ci biir équipe bi. waaw mais loolu tamit xam nga jaar-jaar la comme nuñ koy waxee rek yoon bi moom boo boo boo boo fa jaaree jaaraat fa xam nga di am tuuti expérience boo xam ne. dina la permettre que yenn situation yi yenn yenn yenn yenn coup dur yi nga nga nga mën ko gérer mais wax dëgg yàlla nu bu ñu doon dem Bafoussam euh, certitude bu ñu amoon noonu man euh, après match euh, Zimbabwe bi Euh, taxul ma tiit wala taxul ma ma commencé remettre tout en question match nul bu ñu def tamit contre euh, contre euh, nu mu tudd contre Guinée taxul tamit ma tiit wala ma ma ma ma remettre tout en question tey ñun dañu amoon ay objectif objectif boobu objectif yu clair la woon gaa moom dañu bëggoon am 9 points sur 9 points voilà c'est maanaam mooy gagner suñu premier match bi gagner suñu deuxième. alors Baba Tandian dégg nga Aliou Cissé une de ses premières réactions bi mu ñibbisee avec Mamadou Ndiaye que l'on pour le travail a effectué euh, foofu au Cameroun premier journaliste euh, fii groupe Futur Média champion d'Afrique avec le football alors euh, Ndiaye champion d'Afrique li ma bëggoon wax mooy c'est la victoire quand même pour Aliou Cissé de la volonté et, et de la conviction également critiques yi bëri woon na mais taxul mu dévier de son cap et malgré les critiques ni mu bëree woon il a eu quand même quelques soutiens et on doit témoigner ci ñi ci ñi ko soutenir nga bokk waaw c'est vrai Euh, fii si si. oui c'était dans Jakaarlo de l'autre côté. voilà <laughs> j'étais contre la horde des des indisciplinés là bu bu voilà et tout ça c'est les indisciplinés de de ton émission. Charles Faye les plus indisciplinés Charles Faye boobu Charles beneen affaire la moom mais buuba kooku boobu. et Fou Malade ngeen <laughs> voilà. alors donc je disais qu'à l'époque que euh, tout le monde tirait à boulet rouge sur sur Sadio je dis mais attendez ce ce monsieur il depuis plus de cinq ans. bon quoi qu'on puisse dire il a eu plus de résultats positifs que de négatifs. Mm. mais il, il reste six mois pour aller en Coupe d'Afrique ngeen ne il faut que ñu changer ko mais changer ko pour mettre qui à la place. Mm-hmm. pour recommencer à zéro. Mmh. pour faire un autre système est-ce que vous savez que loolu ça day étourdir un peu jour. non ma ko saay bàyyi leen ko mu continuer. Mm-hmm. mais bu championnat bi d'Afrique bu jeexee lu ñu si am ñu jël. Mm. et aujourd'hui je me félicite. donc rendez rendez-vous tout à l'heure juste après le journal en français moo tax dañ leen di leb soir d'info parti euh, nasaraan bi Aliou Cissé mi lañ koy la ñuy xajal laaj ak tontu dox digganteem ak euh, Mamadou Ndiaye juste après journalu Sara Cissé lay doon alors mënuñu terminer sans évoquer la sous-région parce que yooyu ta acteur nga si sa nijaay au Niger euh, Tandian ne woon na président Mm-hmm. alors actuellement Niger ak euh, li fa xew sous région bi Burkina Niger tentative de coup d'état am na fa amaat fa pourtant président bi bi ñu ko élire pour un premier mandat yàggul loolu jaaxal nit ñi et est-ce qu'il a des chances d'échapper à li dal waa Mali li dal Guinée li dal euh, récemment Burkina c'est cinquante cinquante c'est cinquante cinquante parce que aujourd'hui je crois que les militaires ont de coup d'état mm. euh, mais foofu lu waral ñu fal ko yàggul mais ñu bëgg ko coup d'état oui mais mais mais mais mais parce que en fait c'est des inconscients. Hmm. Euh, quelque part coup d'état sax dafay ñaaw si boobu tu sais man. y a quelque non inconscient rek euh, Baba Tandian mënul expliquer loolu tamit. xam nga xam nga damay nettali damay nettali benn fait. bu mhm. mus am. Mhm. c'est-à-dire que les le les chefs d'état. Mhm. ñi ñuy jël di leen teg. a la tête des armées croyant que seen protection mën na yokk si ñooñu. mais en général c'est pas Je me rappelle, moi, le coup d'État qu'on a fait à Tangian. Mm -hmm. J'étais au téléphone avec lui. Ah le jour du coup d'État, j'étais au téléphone avec lui. Je lui mais qu'est-ce se passe Il me dit, gens sont en de dire. Je lui mais où sont tes gars Il me dit, mais Djibo. Djibo. Mm -hmm. À l'époque, il commandant. Mm -hmm. Mais, j'ai appelé Djibo, je lui mais Djibo, qu'est-ce que tu fais Les gens sont en train de tirer. Djibo, c'est moi qui suis en train de tirer. Ça, c'est une information que je aujourd'hui, dix loolu mooy adage bi di wax euh, je garde moi de mes amis mes ennemis je m'en l'a fait aussi en euh, Mauritanie mhm. et tout vous savez euh, mais est Mali Mali par exemple ñee dem jëli waa Wagner non ah, Wagner je que c'est la pire des conneries que les Maliens ont fait mhm. parce que aujourd'hui gis nga fii nee naa la il faut que Sénégal le Sénégal soit sur ses gardes mhm. parce que ce qui va se passer au Mali le Sénégal sera concerné en premier chef parce que le Mali dina am benn instabilité bu nga xamee ne parce que boo gisee déjà les Maliens tentent de ridiculiser les Français à vouloir les faire sortir par A, Y, Z d'une manière qui n'est pas orthodoxe mhm. dafa rafetul dafa jekkul et qu'est-ce qu'ils parce que d'abord Wagner tout le monde sait que c'est des mercenaires mmh. Poutine dit Poutine il dit à Macron que lui Wagner il ne dépend pas de lui mhm. il ne dépend pas de la Russie alors Wagner c'est te en fait man sincèrement. Mhm. je donne mon avis ah suma mhm. xalaatu bopp la. oui euh, qui n'engage que toi. qui n'engage que moi. oui moi je dis euh, euh, suñu yaakaaree Russie. Mhm. pour se développer je crois qu'il faut fausse Parce que Russie, tout ce qu'il sait faire, c'est vendre des armes, c'est donner des armes, se foutre la pagaille. Et aujourd'hui, c'est en de foutre la pagaille. Moi, je dis, hein, ça, n'engage que moi. Voilà, ah, que moi. Ah. ce qui se passe en Ukraine, tout le monde l'a vu. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui Wagner qui débarque euh, euh, euh, au Mali. Mm-hmm. Et subitement, mm-hmm. il y a un coup d'État au, Burkina et une tentative de coup d'État au Niger. Que Dieu nous préserve. Hmm. merci beaucoup c'est sûrement grave merci beaucoup Baba Tandian euh, yéen it jër ngeen jëf ma fàttali leen rek euh, duñ ko taay di wax comme ñoom ñoo xew gaynde Sénégal yi ci kanam tuuti gannaaw euh, xibaaru nasaraan yi Sara Cissé moom mooy def xibaar yi di ngeen am Aliou Cissé am na tuuti lu ñu leen ci dégtal laaj ak tontu dox na digganteem ak beneen champion d'Afrique Mamadou Ndiaye ci kanam dinañ leen ko dégtal juste après xibaar yi jamono ji soxna Fatou ne dem moom moo teew. war leen faram-fàcceel xibaaru marax yi ci kattanu borom bi jërë ngeen jëf.